desul lu dul di wax ñépp di waj wajee ka wax te du def ca lam wax dara li lee ñàkk xoram koo seeru tey xam nag murit tey dox di waxtaaneeg murit te du defit jëfi murit te nga ni accam te ni cam koo seeru day digleeg joxe te yar yëfam bañ koo joxe kuy dox di santaaneeg joxe te joxewul bàyyil mbiram li tax murit yi bon bari sëriñ si bon dañoo bari sëriñ bu dencee lu bari du mën a tee yóbbu ka dem sëriñ bu dëddoo adduna murit ba dëddoo adduna waxtu wu jubloo adduna murit ba jublu ko ndaxam ku bay areenam ba mu ñor mu jënde kow fasam di war di niru gër mi ci nga war kookale sànk na mbayam moyul sa nawle buy liggéey yow ngay nelaw ba muy liggéey ba noppi nag nga fab lëggéey boobale far ni ko pelam njegam liggéeyoo ku liggéey fexee la fab la mu liggéey joxe ko ndax boo dul liggéey tey joxe defi la yërëm awal ca ngir ma woote ca ku wuy si fekk nga ne ca ku wuy si wul dégg la ca ku wuy si daw nga jël ndamam ku bëgg a jot gaaya rawan ca bëgg ña rawan ñépp dafay not bakkanam ku not bakkan noti kemam te moo na kët ku bakkanam not lee ñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakkan jàpp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakkan ba lay defu fasam ka war fas mënul nga war ka war bakkan moo man nga war dëgg te moo jekk nga war moo mata yéemit nga waram bul topp mukk sa bul toppalit kenn bakkan yi yaar yëf day taxa ku ko bawul du jëm kanam bul topp mukk sa bul toppalit kenn bakkan yii yaari yëf day taxa ku ko bawul du jëm kanam koo xam ni yàlla daala tax mu ñëw fi aw defal la tax mu ñëw fi yow kuba la tax nit ñaw fi yow gàddu loram loo xam ne lii baaxul bayil ku def bayil kuba bayil kuy waya dee ka lu dee fi sikk bu ca jëm te lépp ndigal defal ku def defal kuba defal lii ma la wax boo ko yàlla gërëm la nga gërëm yàlla na noo sunub sëriñ faw te am lépp njariñ yal na nu dëkk ci njariñ faw ak i cant ak i ngërëm yal na nu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak mujj gu yéem gu rafet ak wér gu ànd ak i ngërëm yal na nu am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak muj gu yéem gu rafet ak wér gu ànd ak i ngërëm